ubbilee bunt bi ñu ziar si la ànd koog dayru caam sa doom sa njaboot ñu directeur de l'ARTP balaa muy ñëw fii nag visité na mbooleem liggéey bi nga xam ne président dénkaane woon na ko fu ne dem na fa dem na fépp dem na Orange dem na Expresso dem na préfecture seet liggéey bi fan la toll ci gàmmu gi bi ñu paree nag dem na ziar ji jumaa ji visité na jumaa ji li ci gën a yéeme nag mooy dafa dem yeesal njàppam julee fa ñaar rakk tabarakallah muy loo xam ni ah, ñun lu ñu rafetlu la ànd kook sa doomi bopp yéela meen gumba la délégation baa ngi nii mu ne nag bayee la dem ziar ji xalifa bi ci yow lay njëkkee nga ñaanal ko ndax yéene bi mu am ci yow ak cofeel gi mu am ci yow ak yaakaar bi mu am ci yow amin tabarakallah si kon nag dayru caam ma lay bàyyi rek monsieur le DG nga sanni si ñaari kàddu ñu ngi sant yàlla jàkkaarloo ak suñu maam ji eh, di ko ñaanal gudd fan ak wér di sàkku ci moom rek mu ñaanal ñu bu baax ndax liggéey bi ñu dénk nii kilifa réew yi dénkuñu ko ñu def ko ci anam nu mu gën a sellee ci wàllu bi ñu dénk rek liñ ñu dénk rek comme ni nga ko waxee léegi ñëw nañu saytu eh, opérateur télécom yi ndax dispositif bi ñuy teg pour waajal événement bu rëy bii nga xamante ne adduna bi yëpp fiy jëm si ndax dispositif boobu yemb na am na lu ñu ci jota woon nag rassuré nañu waaye wax nañ leen balaa ñoo leen di féliciter événement bi jàll sans dysfonctionnement donc félicitations yi dañ koy denc ba événement bi jeex waaye tamit suñu ay équipe ñëw nañu ñëw nañu di gunge opérateur yooyu ànd ak ñoom ci saytu réseau bi am na dispositif technique bu ñu fi def am na également numéro vert bi nga xamante ne euh, def nañ ko pour képp ku am jafe-jafe ci wàllum jokkoo rek muy téléphone muy SMS muy connexion yi ñu mën koo signaler foofu bu ko defee ñu liggéey ci ak opérateur yi bu baax a baax ndaxte xam nañ ñu télécom moom fu mu toll jamono ji lépp ci la lalu bu ñu bëggee ref retransmission wu événement bi en direct il faut mu jaar ci xarala yi wàllum santé wàllum transfert yi muy transfert d'argent ak lépp dafa lalu ci lool kon daal matuwaay yëpp war nañ koo jël euh, ñun nag ñu ngi ñëw di sàkku si ñaan mm-hmm. dëgg yàlla incha suñu loxo. di la bàyyee suñu bopp. incha jërëjëf jërëjëf sëñ bi jërëjëf. Eh, lii moom jóg ngeen ci pour ah, ngeen pour ñoo jàppale ñu waaye jàpp jàpp leen ne yàlla ngeen di dimbale. Ah, ndax yàlla nee na moo wax ne ku ma dimbale man yàlla rek ma dimbale la. am na ñu bëgg a ñëw ci dëkk bi. te mënuñoo ñëw. kon bu ngeen buñ jotee ci lii ngeen di def loolu lan la dafay taxaw ci taxawaayu jàppale yàlla kon eh, yàlla na leen yàlla téyel boppam yàlla bu leen yàlla seetaan léet lépp lu ci yàlla di séddale rek marabu ne yàlla ñu ko yàlla boole ñun ñëpp ndax kenn ku ne ci yéen bàyyi na léppam jóg nee nee na usul yoon yi dañuy wax ne sabab mooy li nga xam ne su amee la lay war ci la lay am la lay war waaye su ñàkkee dara du taxaw loo gis rek sabab ba koy taxawal te sabab lu ngeen def ngeen sabab ba pare jàpp leen ne yàlla du leen seetaan mukk ñaari xel boo koy am am ko ci loo seq ak nit waaye yàlla moom lépp loo seq moom boo koy ñaan bu dee lu baax rek neel am naa ko ndem yàlla nee na ci yéene rek dinaa ci fay jaam yonent bi nee na yéene jaam bu sell rek jullit moo gën a jotale sax jëfam te bu boobaa yàlla yéene ji lay jëkk a fay kon yàlla na leen yàlla taxaw ñu bëgg ñëw ñëpp mënuñoo ñëw waaye bu ngeen fi jógee ba teg ko lépp dina feeñ te bu boobaa ñi ci mën a jëriñu ñëpp dinañ ci jëriñu te bu boobaa yàlla dina leen ko fay yàlla na leen ko yàlla defal nag yàlla bu leen yàlla seetaan yàlla mi mën te am te sañ yàlla bu leen yàlla seetaan yàlla na leen yàlla dimbale ci wàll yëpp ci barke rasulillah mu nu yonent bi moo doon wax ne mission bii képp koo xam ne fe nga ko nanga nga fexe ba jottali ko ku ko teewewul te yéen loolu ngeen di def yàlla neen ci yàlla jàppale bu baax a baax